البكي ميمونة ميمونة بكية وبل من يتين برك مينا فوت ليلة القدر كريمي xel yëpp dem ci soxna may fii sawmi bokki julit yi bokki taalibe ñu jëlee ndigal ci sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa waaye jaar ci seen wayjur wa di sëriñ Abbas Mbacke borom Daarul Moxti wàcc ci seen mag ja di sëriñ maam Thierno Ibrahim moom sëriñ Cheikh Awa Balla ndigal loolu nag agsi na ci ki nga xamante ne bii moo di soxna Maam sa Baali ak rakkam jii di sëriñ Mudu Mahfous muy lan bis bi nga xam ne moom la soxna may mënatu daan woote daan ci woo jullit yëpp ak réew mépp ak njabootu sëriñ Tuubaa gépp ñu àndandoo di dundal guddik laylatul xadar ren jii mi ngi dëppoo ak ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru koor wi di guddik ñaar fukki fan ak ñett waaye nag dëppoo waat leneen ngëneel ndax kat mooy dajeeg juróom-ñaari fan ci weeru juin bis boobu nga xam ne ci la Seex Muhammadul Fadal ubbi woon jumaa yi Tuuba kon dañuy ma fanaanee màggal laylatul xadar waaye màggalaale nag àggug jumaa yi Tuuba ak julli ga ndax weeru koor feeñ saa bu ëgsee rek xel yëpp dem soxna may moon a ndax da koo te mu doon bisam te fonkoon ko daan ci def ay teraanga fa yu ne ci fànn yëpp ci kër yëpp nag kon sëriñ baa ngi woo taalibe yi yi nga xam ne ñoo aju ci sëñ Tuubaa ak borom daaru foofu taalibe maa nekk mu def seex muy jëwriñ Tuubaa muy sant daayira sëriñ baa ngi woo ñëpp te bëgg ñëpp teel a te ku ñëw ku ne xam ne kër gi sa kër ga te bis bi bisab soxna may la bisab sëñ Bàmba la daayira yi nga xam ne ñoo seq liggéey bi diggante tàmbale ko fii ci Touba ci këram gi nga xam ne sëriñ Jaga Faal ko jiite ak daayira yi nga xam ñoo nekk Daarul Wahab ak daarul minnam diggante mbajaan ba ca Touba Belel ak ñi nga xam ne mooy waa yab waa yabal ak waa saam yabal wet googu nga xam ne soxna may fi la liggéey bi ëppi woon mu daan ko def bi mu ñibbisee Touba ñoom ñëpp ñu ngi leen di soññi liggéey bi di soññi waa tu itam nag daayira yi nga xam ñoo nekk Madiana ak soppee soxna may yi nga xam ñoo ne ci dëkk bi ak fépp fu fi taalibe ne ñu ngi leen di soññi ci liggéey bi ñëpp ñëw jàpp ci daayira yi nga xamante ne ñoo yor wàllu liggéeyu laylatul xadar bi na ma ko daa waxee rek ñu xam ne soxna si dafa am lu mu ñu digaloon lam ñu digaloon mooy nanu fexe ba gan ñiy ñëw ñu berndeel leen teeru leen teral leen te fas yéene kenn bañ a yóbbaale lu ko naqari kon loolu ñu ngi koy fàttaliwaat ñëpp te daayira yëpp bu kenn ku ne jàppee ne liggéey bi yow yaa ko war a yore yow yow yaa moom liggéey bi defe naa kon liñ bëgg lépp dinañ ko ci am rawatina nag daayira taawanu alal biri wa taqwa bu Tuubaa Sàndaga ñoom moom dama jàpp ne ñoom li ñu war a jàpp mooy liggéey ku fa rek ñoom ngay jàppale su ko ñëpp jàppee noonu rek li ñu bëgg lépp dinañ ko am ñu ngi soññ itam daay kuréel bi nga xam ne mooy kuréelu xasida bi nga xam ne ñooy fanaan ci buntu kër sëñ Fallou ci mbaar mi di fa jàng xasida ba bët set ci turu Serigne Mouhamadou Mahfouz am nañ mbégte mu rëy ci teewaat fii ngir di leen yëgal bis bi ñu jëm muy bis boo xam ne kenn fàttewu ko ndax foog naa fu weeru koor teroo rek xel yëpp dem ci leetu xadr xel yépp dem ci soxna Maymuna yëgle boobu nag ñu ko def ci tur ki nga xamante ne bii ak ndigalul ki fi nekk Serigne Touba bu di Cheikh Mountakha Serigne bi dem na ci moom ba yeesalaat ndigal li moo tax mu am sañ-sañu toog fii di woo mbooleem mbokki jullit yi muy bis boo xam ne nag bis bu rëy la ndax mooy guddi gi gën ci guddi yi guddi gu gën junni weer di guddi goo xam ne itam lii Serigne Fall wax léegi di ci daje dafa bari ndax ki joxe woon ndigal muy sëñ Fallilou ñaan ci ba tax bis bi àgg tey fii mu àgg bis bi bi ñëw di la 7 juin ci la tijji woon jumaa ji kon day mbégte ci moom ci ñaari anam kon loolu foog naa ne du hasard moo tax ren njiitam beneen bi ci dolliku moo di ñu tuddewaat ko ki nga xam ne moo di sëriñ Mourou Moustapha moo dañ njabootam gi toog fii nii te loolu foog naa ne kenn ku ne xam na diggante soxna si ak mu Moustapha ndax moo ko yaral boppam am fu mu ko tegoon lépp nekk ci moom rek lu ci bari mën naa ne si moom Moustapha moo ko def kon foog naa bu ko jëlee dellu tuddiwaat ko ko dafa mel nag dañ ko dellowaat yëfam ñu di ci woo nag mboolem mbokk yi di ci woo mboolem mbokk yi bàyyiwuñu kenn di ci woo itam mboolem mbokki jullit yi bàyyiwuñu kenn li daa wax rek lañuy waxaat fii sëriñ bi dafay toog nekkal leen fi waaye bis bi moom ñëpp ko bokk ndax soxna si ñëpp la jabate woon te bu ko daa def ñëpp la ko daa àndal di ci woy itam ki nga xamante ni moo di président de la république monsieur makki Sall te digg ba kër gi ñëpp xam ko di ci woo mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi koy jàppale di ci woy itam na ñu ñëpp ñi nga xam ne aussi ñu ngi yëngutu ci geneen wet gi ci kujj gi ci des ci yëngu ci lu defar réew mi ndax soxna si bis bi bisub Serigne Touba Serigne Touba ñëpp ko bokk kon daal ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn. di woo mbokk jullit ñëpp ak mbokk talibe ci bis bu tedd guddi gu tedd gu màgg di laylatul xadr rawatina njabootu Cheikh Mamadou nga xam ne moo joxoon ndigal ci soxna si mu taxawal bis bi guddi gi ñu ciy woo njabootu Cheikh Mamadou Moustapha Fadal gépp di ci fàttali ko waale it sunu jàmbaar ja sëñ Cheikhouna Mbacke mi nga xam ne daanaka ñoo ko daan moom daan taxaw guddi gi fas fas yéene ko cee ñaanal ak mboolem jullit ñëpp. fas yéene koo dundalit ni ko soxna si daan dundale rek mu ci jàng alquran jàng ay ak i bernde ñu ngi ci woo mbooleem jullit ñëpp rawatina njabootu Serigne Touba gi yëpp nag la ko dala ci Cheikh Mahamadul Moustapha ba ci Cheikh Mahamadul Mourtada ñoo ngi woo mbooleem turandooy Serigne bi it te nañ ko daan taxawe ñu taxawe ko noonu rek ci ndigalu Serigne Ahmadou Makhtar di xamal mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi rek ne am nañ mbégte mu rëy a ci bis bu tedd bii daan ko taxawal bàyyi ko ci ay loxo yu tëdd ñu tudde ko sëñ Mustapha jokk bokk la feddali kuréel la sëñ boo wax ne bég na ci lool mi ngi ci woon ak bokki taalibe yëpp bokki jullit yépp fu ci waay mën a ne rek nga xam ne bis bi bisub lislaam la ñu tudde ko sëñ Mustapha kon képp ko nga xam ne coloré nga fi wala nga aju fi ñu ngi lay yëgal bis bi nga jàpp ci ngeen gi jàpp ci sa kamtulay kattan ci ak teew ak noo ci mën a jàppee. di wax ci kàddu sunu sëriñ sëñ maam Thierno Mbacke mën na fi yebal di woote bis bi nga xam ne mooy bisu leetu sëñ bi mi ngi jox ndigal képp ku aju suñ kër suñ Cheikh Balla ak noo ci ajoo ak ci ajoo rek ak foo man a nag ci biir réew ak bitim réew mi ngi lay woo ci bis nga ñëw ànd ak suñ mouvement jàppale ko ci ndax kat ko dalee def ba léegi du ko def mukk te ci moom yëgal ko diisoo ci ak moom kon nag mi ngi koy taalu taalubee yëpp lépp luñ ci daan def lañ ko yokk taalibe yi ne ci réew mi ak bitim réew yëpp soññi taalibe yi nga xam ne it ñoo nekk fii ci Touba nga xam ne moom la ñuy defee bis bi mboolem ñi fi nekk te aju ci kër gi yëpp ngi leen di soññ ak Daaru Muxti nga xam fa bis bi sosoo woon nga xam ne fa la soxna si jóge woon ñu fi Cheikh Mamadou Fadil andil ko ndogu ak Daaru Manaan nga xam ne tey fa la suñu Cheikh Obal tëdd ak Daaru Minam ak Daaru Wahab dëkk yooyu yëpp sëriñ baa ngi leen di soññ soññi taalibe yi nekk ci biir réew mi fu nit nekk rek da nga xam ne ndigal fekk na la fa jox na leen ndigal na nga ñëw ci bis bi te loo ci daan def it na yokk te am ci pastéef bu baax a baax te dundal ko it ni ko sëñ bi bëgg ci alxuraan ak xasida fépp taal fépp taal bi nekk daal te aju ci na ko seexu bal te it leen xam ne bis bi bisama fonk na ko lool bëgg na képp ko aju ci kër gi rek danga ko fonk kàddu yi may wax itam ma koy wax ci turu sëriñ Bass Abdou Khoudous sëriñ bi nee na mi ngi leen di fàttali bis bi nga xam ne moom la ñuy woote muy bis bu laytul xadar mi ngi leen di fàttali fi mu toll yàlla tollu fi yonent bi muy aw saar wàcc ci ay ahadis yu bari itam wàcc ci guddi gi laytul xadar yàlla yi sëriñ Tuubaa itam liggéeyloo ci doom ju tedd ji di soxna May sëriñ bi nee na mi ngi leen koy fàttali di woo mboolem képp ku nga xam ne borom daaru nga yaakaar nga taxaw ci ndax bis bi lépp lu ci war waa daaru musi la war dëgg la sox sëriñ Modou Mahfouz day jëwrin ji rek waaye lu ci war nee na moom la war nee na itam mi ngi leen ci woo di ñaan képp képp kenn ku ne ci yéen lépp loo xam ne boo ko defee bis guddi gi jag nga def ko te xam ne borom daaru nga ko defal ànd ceeg sëñ Modou Mahfouz te xam ne itam liggéey bii liggéeyub lislaam la liggéeyub yoonu murid la ndax Serigne Touba kenn ku nekk dafa am lu mu la liggéeyloo liggéey guddi gi soxna may la ko jagleel liggéeyloo ko ci ngeen xam loolu jàpp ci bu baax a baax a baax. noo ngi tàmbalee kàddu yi. ci kàdduy cant ak kàdduy ngërëm jëmale ci sëriñ Touba ak Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne dafa am ñaari cër ci bis bi cër bu njëkk bi moo di soxna Maymuna Mbàkke xaadimu rasul radiallahu taala anha bi muy sos bis bi da def ci kilifteefu ak ndigalul ki fi nekkal sëriñ Touba di ak Cheikh Mouhamadul Fadal noonu yi la ko doon wéyale ci képp ku fi nekkal Serigne Touba gannaaw bu ko ci Cheikh Mamadou Fadal joxe ndigal ba mu def bis bu njëkk ba noonu yi la koy wéyale at mu jot bu weer wi feeñee bala cee dox lu benn jéego day taal mu ñëw bu fi xefe nekkal Cheikhul Khadim laajaat ko ba xam day wéyal liggéey bi wala da koy taxawal noonu yi la ko baaxoo defee ba ci at mi nga xam ne ci li fi mujj nekk nekk fi ak magam ju tedd ji ak Cheikh mbaki mu daa def bu laajee ndigal ba Cheikh Saalihu jox ko ba noppi nag mu yebal ma ci doomam ji nga xam ne moo doon loxom day joram di ak Cheikh Mouhamadul Muntaxa ma boo demee nee ko amaat naa ndigalul wéyal liggéey bi waaye nag yow mi koy saytu bu ci dox benn jéegu maa nga wax ci benn kàddu te amoo ndigalul Cheikh Mouhamadul Muntaxa ndax lépp lépp bis bi ci loxom laa ko teg di sant sunu waajuru bopp di sëriñ Abbas Mbacke mi nga xam ne itam at mu jot bu ma jógee ci ki fi nekkal sëñ Tuubaa damay ba dem ba ci moom moom it sàkku ci moom ay ñaan sàkku ci moom ndigal ñaan ko it mu xam ne bis bi bisu boppama di yeesal sama cant ak samay gërëm itam ci sunu sama kilifa bopp di sunu mag di sunu lépp di alxaaji maam Ceerno mi nga xam ne mooy taawub sëñ Cheikh Awa Balla tey borom kër gi ren bis bi noo ngi ko jagale ak Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ni moo yar soxna a Mbàkke mi nga xam ni moo dalal alquran soxna mun a Mbàkke mi nga xam ne soxna Maymuna Mbàkke wax na ni dem naa ba xaw ba xaw a doon mag soog a xam ne Cheikh Moustapha mi gët du sama wajur ndeke sama maga loolu moo waral ren jii nu fab lépp bis bi jagleel ko Cheikh Mouhamadou Moustapha al Kabir bi soxna si amee yéenay liggéeyal sëñ Tuubaa muy sëriñam di wajuram mu tànn bis bi muy guddi laylatul xadar nekk ci chehru ramadanal mubarak ñëw laaj ndigalal ci kilifa yi ko yi fi nakaloon sëñ tubaa ñu jox ko ndigal muy màggal guddi gi kon nag noo ngi ci woo mboolem njabootuk sëñ tubaa gi di góor di jigéen ci turu soxna yi ak sama tur ak turu mboolem njabootuk soxna may mën a Mbàkke ni ko Cheikh Abdoulahat waxe noonu dañu fee nekk nekkal leen fi waaye bis bi ak soxna si noo njabootuk sëñ tubaa gi yëpp noo ko bokk di ko yëgalit mbooleem yoonu murit wépp njabootuk maam Mor Anta Sali gépp njabootuk maam Balla gépp njabootuk maam Maaram gépp kër gu ne xam nañu cër bi ñu amoon ci soxna si ak fële soxna si tegoon ndax moom te daan wax ne bis bi de nattabloo ma ne am naa ci ngërëmul sëñ Touba xam gu ma xam loolu nag moo tax ma di ko yaatal ba képp ku bokk ci njabootuk sëñ Touba moo xam ngay mbokkum deret moo xam mooy ngay mbokkum pas-pas ma fas yéene di la woo di ànd ak yow ci bis bi ngir loolee ma ci làq ma bokk ko ak mboolem ñu yaakaar sëñ Tuubaa ku ne xam na ne soxna may musta am baaraas képp ku nekk ci diine islaam ak foo wet goo ci mën a nekk rek soxna si seq naa yow taraanga seq naa yow maslaa kon ñoom ñëpp bokk jullit yëpp noo ngi leen ko yëgal di leen ci soññi bu baax a baax a baax tey itam ci daara yi kaamil ñu tàmbali njàng mi daara yëpp jox nañ leen ndigal di sàkku ci ñoom nañ ko daan nañ ko baaxoo defee ñu defe ko noonu ci njàngum alxuraan li ñu ci jàng ñu def ko addi cheikhul xadim def ko addi soxna may mën a bàkke lu ñu si waaye daan jàng loo ci mën a dolli nga dolli ko te sell ga ak rafet ga am di soñ ñi nga xam ne ñoo amee njàngum xasaayit mi fu si waaye mën a nekk koo xam ne mënoo jàng alxuraanul karim it loo mën ci jàng xasaayit nga ko def di ko addi def ko defal soxna may addi sëñ Tuubaa jërëjëf mbokk yi kàddu yaa ngi noonu ñoo ko déggandoo waaye ñu xam ne laylatul xadar ren jii ngërëmul Serigne Touba mën na cee amee ndax kat ki ñu ko duppee mu di Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim moo tàmbali woon jumaayi Touba ji ci ndigalul Serigne Touba waaye ki nga xam ne moo ko digle woon moo àggale jumaayi Touba ji mu dajawaat nag ak bis bañ ubbi woon jumaayi Touba Serigne Mouhamadul Moustapha moo yaral boppam soxna May bañ na ko ba soxna May moo ko taalifal boppam wax ne Cheikh Moustapha moo ma yar moo ma boole it ak sama baay Thierno fu mu mës a dugg rek sëñ Modou Moustapha ko yóbbu. kon yaakaar naa tey jii bu ñëwee bis bi dañ ko delloowaat sëñ Moudou Moustapha Cheikh Abdou Lahad noonu na ku liggéeyal sëñ Touba murid yee la war a fay te kenn nattabliwu ne sëñ Moudou Moustapha liggéeyal na sëñ Touba se May liggéeyal na sëñ Touba Cheikh Mamadou Fadal liggéeyal na sëñ Touba kon bis boobu ku bëgg a dajale ñetti ngërëm yooyu nag jotaale ci ngërëmul ka nga xam ne moom la sëñ Touba waxoon ne mooy sama përëgum di joor te kenn nattabliwu ne sëñ Touba li mu am lépp ci loxol di jooram la la ko amee muy maam Thierno Ibrahima borom bëgg a dajale yooyu dawal ñëw Touba ci guddig Laylatul Qadar